wa fikrati nawir wa qalbi arshada assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi gannaaw ba nu sante suñu boroom subhaanahu wa taala julli ci ab yonentam Moustapha sallallahu alayhi wa di sant asayxul xadim delsiwaat nañ mbokk yi ci jotaay bi nga xam ni baaxoo nañu ko ànd ak yéen muy yóbbalu suba ci seen télévision bi nga xamante ni mooy Mouride TV ba tey rek mbokk yi ñu ngi ci njàngaleem sayxul xadim nafaana allahu bi barakaati sir ismihi mu mel ni sunu jotaay bi ñu génn ñëwoon nañ ba agsi woon ci dëgg dëgg tuub ak itam li nga xamante ni noonu lañ koy war a defe muy def ko ci li nga xamante ni mooy ak coobarew te bañ koo def ci li nga xamante ni mooy ak ñàkk pexe mu mel ni kon bokk na ci sart yi nga xamante ni mooy sarti tuub ci ni nga xamante ni noonu la ko woroom xam-xam yi jàngale te sëriñ bi bind ko mu wax ni wa min surutiha bi qawlil ulama raddul mazalimi ila man zulima mu ni bokk na ci sart yi nga xamante ni mooy sarti tuub ci wax yi ñi nga xamante ni ñooy waroom xam-xam yi mooy nga jël mboolem tooñaange yi nga xamante ni danga ko doon tooñ delloo ko ci ñi nga xamante ni nii ñoom nga doon tooñ ñoo ñi nga tooñoon tooñaa yooyu nga xamante ni moom nga leen doon tooñ su boobaa nga jël ko delloowaat ko ci ñoom loolu bokk na ci sart yi nga xamante ne ci sarti tuub la bokk fal yurdil amwaala lil arbaabi in du bahra bil bi su ko defee nag euh, tooñaa yooyu dana na ñëw ci ñaari xaaj muy koo xam ne dangaa jëloon alalam te alal ji nga xamante ni moom nga jëloon ci moom nga jël ko ci anam woo xamante ni jarul ci aw moo xam danga ko sàccoon wala danga fëkkoon alal ji wala danga ko triande woon wala danga ko nax fexe nga daal ba jëfandikoo alalam ci anam goo xamante ni bokkul ak li nga xamante ni noonu nga ko war a jëfandikoo mu ni su boobaa nag saa yoo demee bay tuub dafa bokk ci sartu tuub yi mooy alal jooju nga xamante ni moom nga jëloon nga dal di koy delloowaat ci ñi nga xamante ni ñooy seeni woroom mooy ñi nga xamante ñoo ko moom su boobaa nga delloowaat leen alal jooju waaye nag su fekkente ni ñoom fekk nga leen ci diirub jamono maanaam boo leen fekkee ñuy dund nga xamante ni ñu ngi dund su boobaa nga jël alal daal di leen koy delloowaat waaye nag su fekkente ni fekkoo leen ñuy dund maanaam nekkuñu di dund moo tax ma ni suma ida lam yujadu falyaqdudi li waarisihimoo bila tardudi alal jooju su fekkente ni nag ñoo ñu nga xamante ni ñooy seeni waroon dangaa dem fekku leen ñuy dund su boobaa ba tey bul ko lekk nan ngay def mooy dangay jël alal ji daal koy jox ñi nga xamante ni ñoo ko war a dond muy seeni dono ñi nga xamante ni ñoo ko war a dond su boobaa ñoom ngay jël alal jooju daal leen koy jox su fekkente ni fekkoo leen fa mu ñi nga amaloon alal jooju fekkoo leen fa waaye fekkoo fa kenn koo xamante ni ku leen war a doonu la ba tey mun la bul ko lekk de waaye na ko jël nga saraxe ko moo tax mu ne suma ida lam yuujadu tasabaxa xanhum biha xakka xanhum biha kama akka man xaqaha waaw su fekkente ne daal ñoom fekkoo leen fa su boobaa nag nga jël ko saraxe ko ne nii nag la ko àttee ka nga xamante ni moo dëggal nee na moom day nii la ko àttee kon bàyyi xel ni bokk na ci sarti tuub daal mooy nga delloo tooñaange yi te ña nga xamante ni ñoom nga tooñoon te tooñaange yi bokk na ci muy alal yoo xamante ni da ko koo euh, fëkk wala da nga koo sàcc wala da ngaa tiñaane wala da ngaa nax boroom fexe daal ba jël jël ko saa yoo demee nag bay tuub su boobaa alal jooju da nga koy jël delloowaat ko kooku nga xamante ni mooy boroom waaw su fekkente ne nag euh, dafa nekk koo xamante ni dangaa tegoon ci ab daram loo xamante ni jaaruwul masalan muy koo xamante ni nii da nga koo wala muy koo xamante ni da nga koo ŋàññi wala muy koo xamante ni da koo xas wala muy doon koo xamante ne da koo saaga ndax benn mën naa nekk muy koo xamante ne da koo jëw wala muy koo xamante ne da nga koo ŋàññi wala mu nekk koo xamante ne da nga koo xas ba tey itam kooka su fekkente ni mi ngi dund nga xamante ne da nga koo tooñoon jëw ko wala nga xas ko wala nga ŋàññoon ko na nga dem ba ci moom nga ni ko ah, man kat waxoon naa la nangam ak nangam léegi baal ma ko su fekkee ne doon na lu ñu mën a tudd nga ni ko ah, jëwoon euh, jëwoon naa la ci nangam ak nangam. su fekkente nag doo duñu mënte du ngeen ko waxoon naa la nangam wala tegoon naa sa der bi nangam jëwoon naa la wala xasat naa la wala ngàññoon naa la léegi damaa bëgg nga jéggal ma ko hmm. su ko defee mu jéggal la ko su boobaa loolu daal lay wàcc moo tax mu ni wa yastailu kullu amrin akala bi ribatin aw xasdin aw satmin jala in adara al su ma in fuxit fa yuksir la xayra lahaa lahu yajid say an yuwadi xaqa kullihim bihi mustaxfirin wa yabdi xaw fa rabbihi waaw ndax dana day day day jomb maam di lekk bépp dar muy ngay jël ci sa mbokkum jullit ngay teg ci ab deram loo xamante ni jaaduwut moo xam da nga koy xas wala ngàññi ko wala ngay jëw ko léegi nag dangay dem bu fekkente ni mu ngi dundu da ngay dem ni ko baal ma jéggal ma su fekkente ni dundatul nag su boobaa nga bari li nga xamante ni mooy aw yiw ndax amaana nga am loo xamante ni di ci mën a matale li nga xamante ni mooy seen xaq ñoom ñëpp su ko defee itam. ngay jéggulu yàlla waaye ngay yaakaar ni di nga am njégalul sa borom subhaanahu wa la kon daal mbokk yi nanu bàyyi xel ni tooñaange yooyu daal ñaari xaaj la muy koo xamante ni dangaa jëloon alalam ci anam goo xamante ni bokkul ak anam gi nga xamante ni moom nga ko war a jële wala muy koo xamante ni dangaa tegoon ci ab daram loo xamante ni jaaruwut moo xam da nga koo xasoon wala da nga koo ŋàññi wala da nga koo ki nga xamante ni dangaa jëloon alalam saa yoo demee bay tuub ndax bokk na ci sarti tuub mooy nga delloo tooñaange yooyu kon demal ba ci moom nga jox ko la nga xamante ni mooy alal de bu fekkente ni moom mi ngi ci jamono di dund waaw su fekkente ni nag doon na koo xamante ne nii dundatul ba tey alal jooju bul ko lekk waaye ña nga xamante ni ñooy ay donoom nga xamante ni ñoo ko war a doon su boobaa demal ba ci ñoom nga jël alal jox leen su fekkente ni nag ña ko war a doon amul kenn ci ñoom koo xamante ni desati na fa su boobaa ba tey tam bul ko lekk waaye jël alal jooju nga xel ko ko te yéene ko la nga xamante ni mooy yool ba waaw léegi nag su fekkente ni koo xamante ne dangaa tegoon ci ab daram lu jaadu muy kook danga koo xasoon wala da koo ŋàññ woon wala da nga koo saaga woon su de boobaa demal ba ci moom nga jéggulu ko su fekkente ni ma ngi dund waaw nga dem jéggulu ko su fekkente ni dundatul nag nga bari aw yiw te mooy bari ay istixfaar yu baree bare ndax xëy na ëllëg yawmal qiyaam di nga am loo xamante ne di nga mën a matale la nga xamante ni mooy seen xaq ndax nañu bàyyi xel mbokk yi nii xaq yi ëllëg yawmal qiyaam ah, ki nga xamante ne da ko ameloon xaq su boobaa yow jëf ji nga xamante ni moom nga defoon mu jëf ju baax jëf ji yiw ji ci la ñuy jël di ko jox ki nga xamante ne ni moom nga amaloon xaq saa yoo xamante ne dem nga ba sa jëf yu baax yi jeex na te ñu nga la amaloon xaq des su boobaa li nga xamante ni ñoom lañ amoon te ab safaan moom la ñuy jël di la ko jox mbokk loolu kon mbokk yi lu mat a bàyyi xel kon moo tax kon ñu war a mën a moytandiku mboolem xaq yooyu suñu kamtulaay kàttan mbokk yi kon xam naa foofu la ñuy taxawlu ci yóbbal bi jox leen di daje incha allahu taala ci beneen yóbbal seen mbokk Mahmoudan Ndiaye doon fii ci Touba li gën ci nun yàlla nañ ñu waroon defal te dëppale ko li ñu gënal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.